amna bisu gaaw bo xamni neena da tolok fuk ak ñent ci weeru ramadan ci atum dal sas 1334 loola kon ca njaarim lay doon gannaaw te tekkusaan ci bisu boobu suñu bi dane dama leen a woo nga leen xamal ne amna na luy ñëw ci kanam lo xamne war na tax kenn ku ne de bari la toroxlu jëm ci yalla diko ñaanaka tuubal kon denk naa leen kenn ku ne ci yéen ñi na jàng la xaddi jaakum benn juróomi yoon mbaa juróom fukki yoon mbaa juróomi téeméeri yoon te nyifinek, fi nekk nañ ko jàngaaleel ñi fi nekkut mbaa bokk fi teew te dégg ndigal li bu koy jàng na ci yéenee jàngalaale ñi fi teewut mu tekki ne weeru koor wi de lu yàlla fonk fonk la lu yàlla màggal la màggal la taqoo cee defu mooy day doy na sëkk sëkk ak bon ag nag ci di moyloo keneen moom daaweesu ak bon niki koo xam ne wóor bay wut keneen woor ko ne koo xam ne te kum gis nga bëgg woor mu bëgg laa génn ci koor ga mbaam bëgg laa yàqal koor ga mu nag bu yërmande yàlla taxee dara ci ay bañ am fii nu nekk suñu barab bi da ngeen dégg moom ay ak musiba feneen fu bokkut fii bu yàlla mi tedd mi melawoo melaw al muntaqim ndax yàlla day al karim di al muntaqim maanaam aji tedd ku bari waitem waye tam doon nak aji fayanto neena bu yalla fayanto day dana wacce ay wo xamne bu ko gisul fi tam ngir yermande da ngeen ko deg fenen dal ne bismillah mune man ngeen yewu ko nak delu te yewu tay yete te farlu ci lu ngeen man ci ñaan ak saraxe tahalla باسم منتقم بابوك بن نتلي إذا الكريم تجلى باسم منتقم لولا جنج فوفو